naa lii moom bu ñu ma dugalee sax jàmm di Macky Sall. di du caa cuu la. cuu la xool cuubalet boo xam ne viande hachée lañ ko defee. di hmm. cuubalet jën wala sa jën ba ñu ñu ñu walaale jën bi ak crevette. Hmm. mu jëf yi am guub ak tuuti tuuti machin chan hmm. Macky Sall mi nga xam ne moo ñu moo ñu forcé ñaar ñii. Macky Sall dellu si waat nekk tête de liste. fegoo kan cum. ma kee ngoog temps yi damaa bëgg Macky Sall fi ñu toll nii ñii lu leen naqari neex na ma entre parenthèse maa ngi nuyu waa Togo sama xarit euh, Togo Togo waaw ah. waa Togo Togo dama bëri ay xarit ah. ma dem euh, Togo kañ maa bëgg waa ah Togo ah, oh mais nag mais nag mais nag Aïssatou suñu honorable dëkk bi mais nag Aïssatou ñu koy nuyu dañoo mënul jël image bi rek. non boobu dañ ma jël Bachir xaar ne agri Bachir. xam naa xam naa Bachir. bàyyi noppi daal. bala ngaa ba ba ba ñu compte courant kii dafa nar a génn feneen fël feneen xam naa ko. non noppi daal xam naa esprit bi. dama ne ñun lu ñu lu lu lu suñu suñu suñu député yee commenté dem ñu leen ñu ngi leen di gërëm. Hmm. man démb ba ma defee sama wax sama sama wax juree jo ba ma ko waxee ba pare daa di ne Marius mais gërëmuma ko. je félicite Watogo. Togo. Hmm. la prochaine fois moi français ndax prochaine fois moi la la la bi ci aka ADF. je vous félicite la prochaine fois il faut bien chiffrer il faut bien <laughs> parce que vous ne faites pas bien chiffrer parce que vraiment la prochaine fois euh, mes frères s'il vous plaît il faut bien euh, chiffrer il faut bien fessif, bien bien bien il faut pas doucement vous avez hier vous avez fait doucement la prochaine foo tuuti ñu ngi daawal ndax ba ma pare sama live bu démb. Hmm. togolais yi dama ko woo sénégalais yi nekk Togo kontaan ne ma ba pare xale yi xool xale Sénégal xale Sénégal yow ci kii bi ñu ñu challenge xale si dañ boole benn fecc na ma bëggoon naa teg mais dafa am. am ma challenge bi gis <laughs> naan euh, euh, waaye yéen euh, kii may Saña. <laughs> dogoo imagine lan la war a nekk nga dogoo xëy xol yaa ngi feex mbay <laughs> gis gaay <laughs> gis nga cest benn il y a deux yaa wax nan du député député la bataille. tey ndaxte mm. assemblée nationale dañoo né même buñu tassé assemblée bi jusqu'à buñu on n'a pas installé hmm. la nouvelle législature ñi fi nak ils gardent leur avantage et statut de hmm. député hmm. mais mënu ñoo réunir maintenant nak parlement CDAO bu mu da fa taxaw ŋàññi toroxal leen wa Togo xam nga xam nga tay jii nii ñun bu Sénégal chaque jour mu wax ko sunum réew lu mu tuuti tuuti tuuti on a une démocratie plus avancée que beaucoup d'autres pays ñun lu ñu sañ taxaw wax ko sunu président de la république wax ko sunu premier ministre demal ci réew yi ñu wër nit ñi sañu ñu koo def mm. tey jii nii au Mali on a supprimé les partis politiques au Mali on a interdit les syndicats mais ça xalaatoo ko def Sénégal en Guinée les opposants sont arrêtés ñenn ñi disparaître Qu'est-ce xamul fu ñu nekk tey jii au Togo Ils fa am feneen ak feneen kon nag ñun lu ñu ne lu loo ñemee toog sa réew wax ko hmm. boo demee réewum jàmbur nga réglé dëgg dëgg mais malheureusement malheureusement hmm. malheureusement dafa tok parlement cdao hmm. wax fa ba créer incident hmm. ñu na non deug la lu muy def ki la hmm. mais xam nga tay ji ni dans des instances comme celle-ci le respect de la souveraineté de chacun dafa war a un baromètre moo ko moko gëna xam c'est-à-dire que c'est-à-dire que stratégie de coup d'éclat de ah, truc ah, ak yoyu non ah, voilà maintenant loolu mo nek non. nga dem Togo demo won dans une réunion ah, ah. Parlement. Parce que c'est ça aussi le vrai. C'est important. de dire aux gens qu'il était parti dans une réunion politique, des opposants au pouvoir qui disent que nous, ils veulent débarquer le président voilà loolu mooy loolu mooy loolu maintenant moi dans quand tu vois le communiqué du ministère des affaires étrangères da ngay xam ni communiqué bobu noonu amna information bu mu joxul sénégalais Guy n'a pas été agressé dans le parlement de la en tant que il a été agressé en tant qu'agitateur en tant qu'activiste dans une activité politique de l'opposition togolaise